mbokk yi ak xarit yi démb di bés boo xamante ni bii bés bu daw yaram la bés la boo xamante ni bés la ci bés yi parce que dafa am yu bari yoo xamante ni bii amoon na mu mel ni bu ma ko doon jàngat damay wax ni tegante dënn parce que dañu yàgg tegante dënn ñi nga xamante ne bi ñooy waa nguur gi ak ñi nga xamante ne bi ñooy opposition plus particulièrement ngir leeral waa PASTEF dañu jóge woon ci événement mars yi 2021 mu am lu xew ci pénc mi mu nekk loo xamante ni bi lu doy waar sénégalais yi musuñu gis lu ni mel ñu ci bari daal di ne violence bi nga xam ni gis nañ ko ci mi bi suñu yaakaar ni senegale mel na nii loolu nga xamante ni bi mooy lu ñu bari wax daldi ne ne suñu foog ni senegale mel na nii et pourtant ñu gis ni li daan xew ci yeneen réew yi lu ni mel xew na ci réew mi bi ñu paree nag président ne déglu naa leen dégg naa leen mu mel ni am na loo xam ne jube woon nañ ko ginnaaw bi Ousmane Sonko génnee daal di taxaw def discours bu responsable wax ni déedéet kenn du dem pale nañ encadrer le président de la république li ko dese bariwul mu yeggale mandaam ci jàmm bu ko defee nga xamante ni buñ ko deful arme mën na jël ëllëg nguur gi tabu boobaa mën na demee neneen xale yi déggal ko daal di taxaw politique yi après toog quelque temps nga gis ni génn nañ wane ni li nga xamante ni bi moo fi jaar du dara lu du tëj gu ñu tëjoon askan wi mbirum corona naqar googu mooy li nga xam ni moo sababoon yëf yi président taxaw daal di wax ne li amoon dootut am parce que li amoon mënatu la ne du moment que préparé wu na ba pare bañ yaakaar ni loolu du am kon dañu nekkoon ci benn moment boo xamante ni bi ñi ngi doon tegante dënn ku ci nekk di wane ni li amoon mën na am wala lu ko raw ñii ne noo li amoon mënatu la am démb li xew-xew bi ñu xëyee gis nañ ci presse yi am na ci ñoo xam ni bind nañ ni policiers yi gañe nañ loolu nag nekk loo xamante ni bi man damay wax ne journaux yu bind loolu duñu ay journaux yu responsable parce que loolu indiwuñ leen pour ñuy wax naan ku gañee ku gañewul mais li xew man jàpp naa ni lañ war a wax leeral ne lii xewkat warta xew parce que lii ak lii ak lii buñ ko defoon lii warta xew daal wane li nga xamante ni bii mooy li am muy lan dakaar dem dikk yi nga xam ne taal nañ ko Sonatel yi nga xam ni song nañ ko Auchan yi nga xamante ni bii song nañ ko particulier jàmbur yi nga xam ni yàq nañ ko magasin jàmbur yi nga xamante ni bii moom la ñu jaxase nan la mën a journaliste mën a taxawee daal di ne policiers yi gañe nañ loolu di wax joo xamante ni bii du waxu ku responsable parce que waroon nañu mën a indi ubbiwaat yeneen buntu ginnaaw bi ñu waxee li xew ba noppi te it ñaawlu jëf ji ni nga xamante ni bii noonu la demee kan la koo xam ni dafa dem ngir wuyu ji procès boo xamante ni bii bu ko neexee toog këram sax bañ a avant que muy wuyu ji fa mu dëkk barricade nañ ko mënta génn mënta yóbbu doomam école ñu xëy bés bi nga xam ne moom la war mu daal dee solo pour daal dee dem wuyu ji. ñu tànnal ko ne ko yoon wi ngay jaar et pourtant ci jamono jooju ka nga xam ni moom tamit moo nga war a wuy ji moom tànnaluñ ko fu mu war a jaar kenn barigatewut këram muy dem nga ne ko fii ngay jaar far force lay xew-xew yooyu yëpp nga mën cee bind bindoo ci mais dem di bind naan policiers yi gañe nañ loolu pour man du ko responsable du def lu ni mel moo tax par exemple damay poser question ne sunu journaliste yi yan façon journaliste lañ parce que nag wax dëgg fa yàlla far d'accord mais par parloo baaxul am na loo xamante ni bii boo ko gisee muy dëkk waxal ni lii kat mooy dëgg loolu bokk na ci li nga xamante ni bi dina tax ki nga xam ne moo koy def delloo siwaat xelam lu mel noonu mooy tax ñu bari di taxaw di wax ni Sidy Lamine manqué na fi parce que lu tax ñuy wax manqué na fi parce que Sénégal dañu tàmm diw manqué na fi diw manqué na fi diw manqué na fi diw manqué na fi mais ñiy wax loolu ci jamono ji ñu nekk ñoom dañu war a taxaw taxawaayu diw moomu ba loolu du fi manqué parce que tey si Lamine dem nit ñi taxaw ne Sidi Lamine Niass manqué na fi loolu nit ñi dañoo war a jëfee jëf joo xamante bi dinañ yëg ni kat Sidi am na loo xamante ni bii bàyyi na ko fi. parce que ñoo xamante ni bi mel na ni moom ñu ngi taxaw taxawaayam ñu gis ni kat lu mel noonu am na fi waaye Sénégal moom day mel ni nu ñuy gën a demee rek valeurs yi ñu koy gën a perdre di gën a perdre lu baree bari ay taxawaay ak ay bëgg sa réew ak et cetera yu ci bari bari ñu koy gën a perdre te defe naa ni loolu nekkul loo xamante ni bi lu war la et pourtant lu mel noonu sax bari na lool léegi ci li nga xamante ni mooy ndaw ñeek seen taxawaay ak seen gis-gis ci li nga xam ni mooy réew mi parce que am na ñu bari ñoo xamante ni bi ak loo leen mën a jox jaralu leen mukk ñu jaay li nga xam ni mooy seeni ngëm-ngëm li am solo tey dëgg mooy doxalin wi nga xam ni gis nañ ko démb rafetul benn yoon ci darab Sénégal ci biti parce que journaliste àdduna ñoo fa nekkoon te Sénégal exemple la woon nekk dëkk boo xamante ni bii exemple la ci pays Afrique yi maanaam ñu mel ni ñoom nit ñi daan roy ci ñoom am na image yoo xamante ni bi buy commencé di génn ci réew mi loolu képp kuy sénégalais da nga war a taxaw wax ci bind ci ngir lu mel nii dootut amati ilaa yawmi diin